téléspectateurs, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons dans les Maîtres du jeu, votre émission qui va à la rencontre de ces professionnels un peu partout dans le monde. Et bienvenue ici à Naples. C'est la première ville dans laquelle vous atterrissez quand vous venez au sud de l'Italie. Naples, une ville forcément Euh, passionné euh, de football qui court derrière euh, son scudetto depuis 1990. À l'époque, la figure qui avait porté haut justement la ville napolitaine, c'était Maradona. Plus de 20 ans

Je me sens très très bien, la vie est super et magnifique, à 4 de vie génial, donc j'en profite. Vous en profitez et sur le plan footballistique aussi, tout va bien Oui, tout va bien. On essaie de, de lutter pour le Scudetto, c'est très difficile, mais j'espère qu'avec l'aide de Dieu, on va y arriver, Inch'Allah. Et puis un, un bonheur n'arrivant jamais seul, vous avez également euh, la possibilité de jouer pour l'équipe nationale du Sénégal. Oui, ça c'est, je le fais avec un très grand honneur. C'est, Franco Carbone. E Evangelista. Pasquale. Siamo tifosi del Napoli, assolutamente. Tifosissimi del Napoli, tifosissimi da, sempre. Da quando sono nato, 41 anni. Eh, depuis 15 ans que je, que je vis à Naples. Je suis l'équipe de près. Colibali innanzitutto è un gran giocatore, veramente un ottimo giocatore, siamo fortunati che sia venuto nel Napoli perché per me diventerà il difensore più forte del mondo. Colibali è il difensore oggigiorno più forte del Napoli. Disons que la première année a été un petit peu difficile, mais c'est un joueur qui quand même petit à petit a conquis, a trouvé ses marques et a conquis toute, toute l'équipe et a pris une place, euh, disons, incontournabile alla difesa. Va benissimo, è e anche l'età, lui è giovane, deve crescere. È aiutato da grandi allenatori diventerà uno dei migliori pilastri della nazionale senegalese e del Napoli. Che è una roccia, un uomo scavato nella roccia, è incredibile, è fortissimo. Si avec Benitez il eh, peinait à eh, eh, prendre ses marques, mais avec le nouveau entraîneur Sari, ma il s'est révélé être grand défenseur. A Napoli è stata una sorpresa. Sapevamo che giocasse con la nazionale senegalese, ma la cosa più bella di, Coli, di è che lui si è integrato bene in questa città, perché questa città glielo ha permesso e noi napoletani siamo orgogliosissimi di averlo qui. A differenza di tanti altri paesi, Colidou Colibali qui è a casa sua. Lui è ancora giovane, fra due anni diventerà il difensore più forte del mondo. Speriamo, che resti a Napoli e faccia come dire eh, di Napoli il suo blasone e la sua squadra del cuore per sempre. È chiaro, è un ragazzo giovane, potrebbe mirare anche a vele più alte. Noi auguriamo che il Napoli sia tra le squadre più forti del mondo insieme a Koulibaly. Prima mi ricordo ai mondiali andavano bene, era una bella squadra, ora sembra che si è persa un po'. C'è stato un'altra volta il sopravvento delle vecchie squadre come il Camerun, la Nigeria, et le Sénégal est passé en second plan. Koulibaly, euh, pour nous Sénégalais qui vivons ici à Naples, est une grande fierté. Oui, parce que bon, je, je, je, je le note aussi quand je parle avec mes amis napolitains, même si euh, euh, au début ils ne le prenaient pas tellement en considération, mais aujourd'hui c'est il, euh, il n'atterrisse pas de loge pour lui. Hein. Però noi adesso c'è Koulibaly e il Senegal la, Coppa, la prossima Coppa d'Africa. Ozi Goulam, euh, latéral gauche. Mon nom c'est Mertens, euh, je suis un Belge et je joue ensemble avec Khalidou Koulibaly à Napoli. Kouli, ça fait bientôt, deux ans. Cet été, ça fera deux ans je connais. Ben, fait maintenant la deuxième année et euh, je m'amuse avec lui. C'est connu euh, en, en retiro, ils appellent ça, c'est la mise au vert qu'il y a avant la, la pré-saison. C'est un stage et moi je revenais de la Coupe du Monde, donc je suis arrivé un peu plus tard que, que lui. Et on s'est retrouvé dans la même chambre parce que vu il parlait français. Donc... Euh, ils sont en train de le regarder. Et il est arrivé ici, il a commencé très très fort. Après, il a eu un petit, un petit moment un petit peu moins bien parce que je pense qu'il y a eu aussi le temps d'adaptation, où il y a eu, voilà, ça, ça s'est fait rapidement. Et puis voilà, cette année, il a commencé la saison, on va dire, euh... temps battant. Et aujourd'hui, pour moi, c'est le meilleur, défenseur central d'Italie. Bon, l'un des meilleurs d'Europe. Il est bien, on va dire. Après, il est grand, il est euh, rapide, il est puissant, il est bon, dans le jeu aérien. Il est aussi très fort en 1 contre Je pense que ce qui est sa meilleure qualité, c'est en 1 C'est vrai que très peu de, voire aucun attaquant le passer en 1 contre Ce qui fait aussi sa force, et ça aussi, c'est la différence, c'est que voilà, un, la différence entre un bon défenseur et un très bon défenseur, c'est qu'aujourd'hui, lui aussi, il a la capacité de relance qui est très, qui est, on va dire, pour moi, l'une des meilleures d'Italie. Il, il dégage très rarement. stai frate? Tutto bene. Tutto a posto, ciao, chi è ciao. tuo fratello? No, mi intervista, fanno un'intervista dal Senegal, ah. vengono dal Senegal. Tutto bene? A posto? Sì, frate vedi che questa busta Sì eh, già saputo No, no, ma con me I never dey wonder, never worry you. My baba dey my body. I never dey holla for my money, I call on my God oh. people let me hear you say. See no be coco for my God. He oh. be coco, be coco, be coco. Eh. No wahala be coco for my God. Oh. My people let me hear you say. Be coco for my God. Oh. Be coco, be coco, be coco. Eh. No matter be coco for my God. Oh. Ah, I go dey shocky for my God. Oh. Asunto for my God. Oh. I go shokoto for my God. Oh. Enene, enene. Eh, I go dey shocky for my God. Oh. Asonto oh. oh. oh. du dîner a sonné, nous sommes ici euh, dans une pizzeria du coin. On va dire que la pizza, c'est une spécialité italienne, n'est-ce pas, Khalid Ouais, c'est une grande spécialité. je suis arrivé ici, on m'a m'a directement montré ce qu'était la pizza napolitaine et elle est très très bonne. Elle est très très bonne, surtout quand il y a donc euh, le nom du joueur <laughs> marqué dessus. On se fera un plaisir de, de déguster cette pizza. Alors Khalidou, qu'est-ce que ça vous fait justement euh, de côtoyer de grandes stars au sein de ce club euh, napolitain comme Higuain, Goulam qui est l'international algérien J'imagine que ça vous oblige tout de suite à vous mettre au niveau. Ouais, bah, ça t'apprend tous les jours, tu, tu, tu, grandis tous les jours, prends beaucoup de, de maturité. On est là, on, on essaie de. Un peu d'eau Oui, s'il vous plaît, merci. <laughs> on essaie de, de, grandir tous les jours. Après, des joueurs comme Igoen, Calderon, Alguel, c'est des, des, grands joueurs. On a même euh, Brice Mertens qui est un très bon ami à moi. Mm -hmm. On mhm. essaie de, de se voir très très souvent en dehors aussi du foot. Angoulême aussi. Okay. Et voilà, l'entraînement, j'apprends beaucoup. On essaie de, de faire des, des, des, bons entraînements, de, de grandir tout, tout, le temps. Et puis moi, ça, ça, ça m'oblige aussi à, être, à, avoir un bon niveau et le niveau requis pour aller aussi en, en équipe nationale. Alors, ce qui est fou, c'est qu'en décembre 2013, euh, euh, vous recevez un coup de fil de Rafa Benitez, l'entraîneur, et vous pensez à une blague. À ce moment-là, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête euh, bah, J'étais à la maison mm -hmm. avec ma femme et on, on, on regardait la télé comme d'habitude. Non, en Belgique, j'avais un ami qui s'appelait Ahmed qui m'appelait très très souvent de temps en temps. Okay. Et une fois, ben, le jour où M. Benitez m'a appelé, moi je croyais que c'était cet ami-là, donc je dis allô. Et lui il me dit ouais, euh, allô, Raphaël Benitez, euh, entraîneur de Napoli. Euh, ça va Après, Moi, en rigolant, je dis allez, arrête de, de te foutre de moi et rejoins-moi chez moi, je t'attends, on va, okay. on, va, on va un peu rigoler. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu, ça, je crois deux jours que je ne l'avais pas vu avant. Okay. Et je raccroche. Et le même numéro me rappelle. Et moi, étonné, je décroche. Je dis Allez, arrête, vas-y, viens, je t'attends, je suis chez moi. Tu veux quoi Et je raccroche sans, sans, le laisser parler. Et mon agent me rappelle et il me dit euh, Ouais, il y a Raphaël Béditiès qui va t'appeler dans, dans, quelques instants, donc euh, garde ton téléphone à la main. Et moi, je lui ai dit Mais je crois qu'il m'a déjà appelé et je lui ai raccroché deux fois au nez. <laughs> J'ai eu deux mots son numéro, je vais le rappeler ou quelque chose. Et finalement, il m'a rappelé une troisième fois. Ok. Et là, je me suis excusé. Bah, il m'a dit qu'il me suivait depuis très longtemps. Depuis qu'il, déjà qu'il était à, dans, des, dans d'autres clubs, il me suivait déjà. Après, l'opportunité s'était faite à ce moment-là. Il restait seulement deux jours du mercato pour faire le transfert. Genk n'était pas prêt à mon départ, donc okay. euh, je suis resté. Mm-hmm. Après, voilà, j'ai, pour moi, la, l'aventure était un peu finie. Je, je travaillais pour aller Ok, il m'a dit qu'il pouvait me reprendre, mais moi j'y croyais plus. Je okay. pense que le train était passé. Okay. Mais finalement, euh, il a attendu six mois et il est revenu me chercher six mois plus tard et j'étais très très content parce que j'ai vu que c'était un homme de parole. Il a dit okay. qu'il comptait vraiment sur moi et il voulait me préparer pendant ces six mois-là du la deuxième phase euh, du, du, championnat en Italie pour, euh, pour me faire jouer l'année d'après. Mais finalement, je suis venu pendant l'été euh, 2013. Pardon. Ah ouais, c'est ça, 2013. Et ça, voilà, ça, ça s'est super bien passé. Alors, Khalidou, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez été formé donc euh, au centre de Metz. Vous arrivez, vous restez, je pense, deux ans. Et on vous renvoie parce qu'on dit que votre niveau est, est insuffisant. À ce moment-là, quelle est votre réaction Vous vous dites, bon, le football, c'est pas pour moi, je vais aller faire autre chose. Et comment ça se passe ah, C'est bah... en décembre, je pense, 2010. C'est en 2010. Ouais, c'est en 2010. Euh, J'étais jugé trop court en fait pour rentrer au centre de, de formation. Donc je suis revenu chez mes parents, habité chez mes parents et j'ai joué en, en 5e division en France. 5e euh, division et voilà, pour moi, c'était pas fini le foot, mais je voulais jouer à un niveau le plus élevé où je pouvais, mmh. tout en allant à l'école, en, en, travaillant à l'école. Et voilà, j'ai travaillé pour avoir, euh, pour avoir mon baccalauréat. Mmh. je suis content, je l'ai eu et voilà, mais tout en restant à côté de mes parents, en les aidant, eux en m'aidant aussi parce que psychologiquement c'était un peu difficile de d'échouer mmh. au port de centre de formation, mais voilà, j'ai pris une autre, une, autre, une autre route et j'ai eu mon bac et, et ces trois ans, je pense, qu'ils m'ont permis de, de, grandir plus mhm. rapidement parce que je jouais avec des pères de famille déjà, avec okay. des gens qui travaillaient, qui okay. venaient après le travail s'entraîner. D'accord. Ça m'a permis de, de mieux De grandir, très bien. Et deux ans après, ils reviennent à la charge finalement. Le FC Metz, qu'est-ce qu'ils vous disent Il y a, voilà, en 2008, tu n'étais pas assez bon. Deux ans après, ils te rappellent. Qu'est-ce qu'ils te disent bah, C'est Olivier Perrin, qui était aussi un Vosgien que, que je <laughs> remercie Olivier, encore. Olivier qu'on salue de passage, qui est le manager général de Génération Foot, évidemment. Ouais, voilà, qui, qui est revenu me chercher à la maison. Et voilà, les, les, entraîneurs ont vu du potentiel en moi, ont vu que je pouvais réintégrer le, le cycle professionnel. Moi, ça m'a fait plaisir. J'avais aussi d'autres clubs qui étaient, qui étaient sur moi. Mais j'avais à cœur de, de, faire bien à Metz parce que je pense que c'était. j'avais. C'est une pas sorte de revanche, quoi. Une sorte de revanche sans, sans être. Euh, <laughs> voilà, c'était pas une revanche négative, c'était mmh. pour mm. moi un point positif, essayer de, être professionnel dans, dans ce club qui ne m'avait pas vu professionnel dans un premier temps. Et mmh. voilà, ils ont, ils ont, ils ont vu que, que j'étais capable de faire autre chose et ils m'ont rappelé. Et moi, sans rancune, sans rien du tout, je suis reparti là-bas. Et ça m'a fait, ça fait plaisir. J'ai revu des amis, je connaissais déjà la maison et c'est ça qui m'a aussi aidé. Très bien. Aidé. Et puis, à partir de là, tout est allé très vite. Hein j'ai beaucoup de respect pour les gens parce que je sais, j'ai souffert comme beaucoup de gens ont souffert. Moi, quand je vois mon père qui, qui, a travaillé toute sa vie pour nous, nous rendre heureux, moi c'est son exemple que je prends. Il a toujours mmh. travaillé sans, sans, rien dire et voilà, il a fait, il a fait briller, briller son nom à, à sa manière et moi j'essaie de, de, faire briller mon nom à, à ma manière. Et, prends beaucoup d'exemples sur lui et c'est lui qui m'a beaucoup inculqué. Mes parents sont, sont, très importants pour moi. Alors moi je vais vous lire une phrase que disait en fait un de vos anciens entraîneurs, Dominique euh, Buijota, en, à votre propos. Ce n'est pas quelqu'un qui va se répandre et s'exprimer. Par contre, il a beaucoup de convictions. C'est un garçon qui a une vraie euh, réflexion sur sa vie et sur son jeu. Et je pense que ce que tu viens de dire par rapport à ta famille, par rapport au papa, par rapport à l'environnement dans lequel tu as évolué, pour moi, ça, ça, incarne un peu voilà, ce qui, lui, il vient de résumer en deux phrases. Oui, je pense qu'il m'a très, bien, il très bien décrit sur, sur, sur ces deux phrases. C'est le premier entraîneur qui, qui, a eu, du moins, le courage de, de me mettre sur, sur un terrain de professionnel de Ligue 2. Et voilà, je le remercie. J'ai été jusqu'à me mettre capitaine de, de l'équipe de Metz, donc ça c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Donc euh, sur le plan du jeu, on en, on en arrive, euh, beaucoup de gens en fait, euh, même les observateurs avertis, louent vos qualités athlétiques. Maintenant sur le plan technique, je pense qu'il y a encore peut-être du travail à faire. Et déjà même euh, en tant que joueur assez élancé, même devant les buts, essayer de marquer peut-être un peu plus de buts. Si, c'est ce que coach me dit souvent. Ah, euh, vous voyez Un grand comme moi qui marque pas de but, c'est pas, c'est pas, du tout, tout, euh, c'est pas normal. Quoi. Et lui, il me pousse à ça, aller essayer de, d'être plus décisif dans les matchs. Après, euh, voilà, je sais que mon premier travail sur un terrain de foot, c'est défendre le, mon, mon but à moi. J'aime bien ne pas prendre de but, c'est, c'est déjà mon, ma première idée dans la tête. Mm-hmm. Mais si je peux aider l'équipe à marquer des buts, je vais essayer. Mais C'est difficile pour ouais, moi cette, difficile. année, je n'ai pas, pas, encore remarqué. <laughs> On espère que ça va arriver. Que ça, va, ça va arriver vite, mais voilà, le plus important pour moi, quand tu joues à Naples, quand je ne marque pas, je ne me, je me, pose pas de questions parce que ouais, devant, on a une attaque de, ne, de feu, ouais, qu'on a ne pas encaisser. Caleron, Insigne devant, Mertens qui peuvent marquer à tout moment. Pour moi, marquer des buts, Bien sûr. Ouais, c'est un bonus. Maintenant, euh, sur le plan du jeu, au-delà de marquer des buts, évidemment, euh, c'est un bonus pour un défenseur. Mais euh, sur le plan du placement, euh, techniquement, est-ce que tu sens qu'il y a encore des choses à, à améliorer Oui, je sens que je peux améliorer encore beaucoup de choses. Je suis un joueur qui aime bien progresser, qui est toujours là à la recherche de, entre guillemets, la perfection, même si je sais que c'est très difficile de, de l'avoir. Mais Je sais qu'il y a encore beaucoup à travailler techniquement. Je sais que je peux encore donner plus, surtout tactiquement. J'ai mmh. déjà beaucoup appris en une année et demie. Ouais. Et j'apprends encore aujourd'hui. Et je pense que déjà, j'ai passé un, un, grand palier en, en, arrivant en Italie. Et en t'imposant comme titulaire dans la défense napolitaine, ce qui euh, n'est pas rien. Je sais, je sais, j'essaie d'être un un joueur important de cette équipe. On sait que c'est difficile avec des, des personnalités, des, des, grands joueurs comme ça, mais mmh. essaie de, voilà, de représenter la, le Sénégal euh, ici dans cette ville de Naples et j'espère que je le ferai bien jusqu'à la fin de saison. Alors, pour l'homme timide que vous êtes, finalement, vous étiez au centre euh, des actualités récemment avec ces cris racistes dont vous avez été euh, victime à la Lazio et trois jours après, euh, donc, euh, ce coup d'affection montré par les supporters napolitains euh, qui ont porté tous une photo photo avec euh, donc euh, la tête de Khalidou Koulibaly. J'imagine que pour vous, ça a, eu, ça a dû être beaucoup, beaucoup d'émotions. Toi, en tant que joueur déjà, les deux, voilà, les deux faits, comment tu les as vécus Les cris racistes d'un côté et euh, cet acte d'amour montré par les supporters napolitains. Ben, je l'ai vraiment déjà à Rome, c'était un peu difficile parce que euh, au début, j'ai pas beaucoup entendu les cris, mais Quand j'ai vu l'arbitre Irati de M. Irati arrêter le match, là j'ai compris que si même à lui ça, mmh. je les mm. entendais comme ça, je, je me disais que j'étais j'étais pas fou, que j'entendais vraiment des, des, cris de singe. Après j'essaie de faire abstraction parce que voilà, j'aime bien le beau jeu, j'aime bien le football, j'aime bien donner du spectacle. Les spectateurs sont, sont, sont dans le stade pour regarder le match. Et quand j'entendais ça, voilà, au bout d'un moment, ça me déconcentrait aussi. J'avais plus de mal à me hmm. concentrer. Mmh, okay. Après, voilà, j'ai remercié aussi l'arbitre parce que je pense qu'il a, a, fait un geste très, très courageux d'arrêter le match euh, ces, ces, cinq minutes-là. Et mmh. voilà, après, il y a tous les joueurs de la, Roma, de, de la Lazio excusez-moi, qui, qui, sont venus me voir, mmh. dont Balde Keita oh, ouais. que, que, je connaissais. Et voilà, hmm. on, on a un peu discuté eux savaient que c'était pas tout le public euh, de la Lazio qui était comme ça, mais mmh. voilà, Mais c'est comme ça, c'est très, très dommageable. Ouais. Et trois jours après, quand on est revenu faire notre match euh, à domicile, euh, quand j'ai vu tout le stade comme ça, avec euh, une photo de moi, là, ça m'a fait beaucoup. Mmh. Euh, beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup de bien parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup beaucoup de soutien. Mmh. Déjà j'avais reçu beaucoup de messages de la part de, des supporters, des photos, des. Enfin, j'arriverai pas à tous les remercier <laughs> parce que j'en ai reçu tellement. Mmh. sur les réseaux sociaux, sur même des lettres euh, de, la part de tout le monde, mmh. la Fédération sénégalaise aussi, de l'ambassade du Sénégal à Milan qui okay. une lettre pour, me, dire qu'il me soutenait. Et okay. ça, ça m'a fait très très très, très plaisir. Très plaisir ouais. Et après, voilà, ce stade, euh, les Napolitains avec tous euh, une photo de moi, yeah. vu que, euh, voilà, pour moi, Nat, c'est... autre chose. Sarà doveroso verso una persona che non solo è uno di noi, perché è un fratello nostro, ma eh, questo vale per tutti, non solo per Koulibaly, per tutti quelli che vengono dall'estero nella nostra Italia, perché quando noi andiamo lì è la stessa cosa, pertanto il mondo è tutto una cosa, noi siamo tutt'uno, questo deve essere obbligatorio. Uh, trois semaines après, voire un mois après, euh, Didier Deschamps euh, sur le plateau de Canal Football Club dit qu'il vous suit euh, parce que vous êtes un potentiel euh, joueur sélectionnable en équipe de France. Quand vous entendez ça, quelle est votre réaction Bah moi j'étais à la maison avec euh, ma femme et ma famille en train de regarder justement Canal Football Club mais <laughs> j'ai regardé sans le regarder parce que on discutait en même temps, on rigolait un peu et mm -hmm. surtout pour regarder les, résumés des matchs. Mhm. Et euh, j'ai un ami qui. m'appelle et qui me dit euh, regarde et ça parle de toi Canal Football Club. Et juste au moment là j'entends mon nom à la télé et je dis qu'est-ce qu'il dit et tout. Et après, j'ai mis retour, j'ai regardé ce qu'il disait et je me suis dit, euh, ben, je pense qu'il qu a dû se tromper. Je pense que c'était une maladresse de sa part. Parce mmh. que, hmm. après, je sais pas, je pense qu'il voilà, il a pas vu que j'avais joué pour le, pour le Sénégal avant ça. Mmh. Moi, j'avais aucun, aucune aucun commentaire à faire, à faire sur ça. Sûr. Parce que voilà, je savais que ma, ma, sélection était déjà au courant. Ouais. J'ai reçu même des appels des, des, des, des, gens de la sélection pour qui m'ont dit eh, T'as vu regarde, <laughs> regarde, ça parle de toi alors que tu fais rien du tout, tu es à la maison. Ok, euh, très bien. J'ai peux rien, mais voilà, je pense que c'était une maladresse de sa part. Il n'a mmh. pas, hmm. il a pas fait attention, mais voilà. Ouais. Alors, cette question justement du choix, à un moment donné, forcément, ça s'est posé. entre le Sénégal et la France Puisque moi j'ai lu une interview où tu disais qu'à un moment donné, tu pensais que l'équipe de France allait te faire signe. Ah, mais c'était l'année dernière quand je suis arrivé à Napoli aussi. J'avais aucun signe des, des, des, deux sélections. Et voilà, j'ai décidé d'attendre un peu, de me dire peut-être j'aurai un signe de, de l'équipe de France cette année-là. Après, c'est passé cette, cette, cette, cette saison-là où ils n'ont pas fait signe, à, euh, ils ils n'ont pas du tout parlé avec moi. Mmh. Après, voilà, je me suis dit qu'à 24 ans, il est, temps de, de, jouer avec une sélection, Sénégal, euh, une nationale. Pardon. Hmm, hmm. Et après, au début à la fin de la saison dernière, il y a Ali Cissé qui m'a appelé et qui m'a demandé si ça m'intéressait de, jouer pour le Sénégal. Hmm. je lui ai un temps de réflexion et il a, respecté ça. Il m'a laissé 2-3 mois pour, réfléchir et voilà, Au début de la, cette saison, j'ai décidé de jouer pour le Sénégal parce que euh, son discours m'a plu, l'équipe m'a plu. Les, quand j'ai vu les, les matchs, euh, l'ambiance au, au, Sénégal, voilà, ça m'a ça m'a montré que ma place était là-bas et mmh. j'ai mm. décidé de, de, de, jouer pour le Sénégal. Et c'est un choix qui, est, qui, a été très, très important pour moi. Très bien. Alors c'est un choix important, tu as intégré la, la, la sélection. Maintenant, euh, du Sénégal, qu'est-ce que tu connais connais, je connais, je connais pas, énormément, c'est normal, j'ai pas grandi au Sénégal, j'ai grandi en mm. France. j'ai quand même grandi avec la culture sénégalaise, parce que mes parents sont Hal Poulard et chez moi ça parlait Poulard. Donc euh, il avait pas d'ambiguïté. j'ai grandi avec, la, culture sénégalaise, manger du, du tous les jours, du... c'était une chose normale pour moi. quand je dis aux gens que je parle poulard, les gens ne me croient pas. Ils croient que je parle seulement français ou autre chose. Mais, ok. Tu sais, mes, mes parents sont, sont, sont sénégalais. J'ai grandi avec cette culture-là. Et mmh. Ils sont moi, originaires de quelle région De Gano, vers Matam, vers le Fouta là-bas. D'accord, ouais. très bien. Donc voilà, mon père a grandi là-bas et on, quand on rentre au Sénégal, on va tous là-bas. Donc mmh. euh, hmm. pour moi, je connais seulement cette partie-là, le Fouta du Sénégal. Mais voilà, Dakar aussi, j'ai connu un peu aussi. Et mmh. voilà, surtout avec l'équipe nationale, quand j'ai joué, et découvrir l'ambiance qu'il y a dans les stades et visiter la Et cette ferveur qu'il y a autour de, de l'équipe nationale, ça, ça, me pousse à encore à aller en équipe nationale. Bien sûr. Alors euh, j'imagine que voilà, les ambitions forcément, parce qu'un joueur, c'est vrai que c'est le club, mais c'est aussi euh, l'histoire euh, avec son, son, équipe nationale. Euh, si on connaît les El Fadiga, tout le monde, c'est parce qu'ils ont brillé avec euh, l'équipe nationale. Aujourd'hui, euh, avec le potentiel que vous avez, parce qu'on parle beaucoup de jeunes, de potentiel, mais le Sénégal n'arrive pas encore vraiment à, à s'imposer sur le plan continental. Euh, D'après toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la mayonnaise prenne et que votre équipe franchisse un, un cap ah, Moi, je pense qu'il faut, qu'il faut du temps. On a besoin de temps. De... Cette équipe est jeune, comme vous l'avez dit. On a, on a beaucoup de joueurs qui jouent dans, dans les plus grands championnats, comme en Angleterre. ou en Italie ou en France aussi. Donc euh, c'est très important de, de, laisser la mayonnaise se faire. Mmh. Je pense dans un premier temps, il faut, faut, essayer de se qualifier pour euh, les, plus, les grandes compétitions comme la, la Coupe d'Afrique et mmh. la Coupe du Monde. Okay. Pour essayer de le faire avec, euh, avec euh, le plus rapidement possible. Après, on va essayer d'y mettre la manière, mais je pense que le Sénégal a, doit avoir euh, ces compétitions-là en tête et doit participer à ces compétitions. Donc, on va essayer déjà de, de, tout faire pour se qualifier pour ça. Et mmh. après, on va essayer de, de, mettre la manière avec. Mais... <laughs> pour le moment, il ne faut pas être trop exigeant. je pense, je sais pas, le, le, Sénégalais de base est exigeant. Moi, je suis exigeant avec moi, c'est normal. Je, ouais. je comprends qu'ils qu veulent tous euh, voir du beau football, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que le Sénégal doit participer à, à Aux ces grandes compétitions-là. Compétitions, ouais. Donc, euh, je pense qu'il Dans un premier temps, il faut se qualifier, il faut avoir okay. ça en tête, se, se qualifier pour ces compétitions-là. Mm -hmm. Et après, on va essayer de mettre la manière, mais je pense que le coach travaille beaucoup sur ça. Je sais que, que le coach a confiance en tous les joueurs qu'il convoque à chaque fois et le dit à tout le monde, même ceux qui ont moins de temps de jeu. Je pense mm -hmm. que on est un groupe solidaire, on essaie de, tous de, de donner un, un, coup de main à l'autre, donc euh, c'est très important. Aujourd'hui, je suis arrivé, je connaissais un peu moins des joueurs qui ont joué au pays comme Khadim Diaye, mais aujourd'hui je m'entends me, super bien avec lui et on okay. s'appelle souvent, Cara aussi. Mm. Et ça c'est très important. On essaie de. J'ai beaucoup de contacts avec tous les joueurs de, de la sélection et okay. j'essaie de, de, garder contact le plus souvent possible. Alors Khalidou, ce qu'on peut vous souhaiter évidemment, c'est

Ça, c'est la question qui se pose souvent en ce moment, mais sérieux, je suis dans un, déjà dans un grand club, je pense. Tout à Napoli, on, on, essaie de. Cette année, on joue un beau football, on essaie de, de gagner le Scudetto et j'espère gagner ce Scudetto aussi euh, mm -hmm. avec le Napoli cette saison. Mm -hmm. Mais moi, j'ai toujours voulu jouer la Ligue des Champions, c'est mon rêve et j'espère le, le jouer avec le Napoli. Après mon futur, on verra ce qui sera, mais pour le moment, j'ai pas très envie de quitter ce cadre de vie. C'est vraiment l'idéal pour moi ici. Ma famille se plaît bien. Mes, mes, amis, quand ils viennent, sont très contents parce que mmh. c'est une ville accueillante ici. Okay. Quand ils vont en ville ici, ils n'ont pas de problème. Euh, je me sens très bien, Alors Khalidou, vous avez 24 ans, vous êtes déjà marié, vous êtes relativement professionnel. Et voilà, je, je, suis marié, ça fait 7 ans que je suis avec ma femme. Et on a eu un enfant cette année, donc euh, <laughs> voilà, on profite. On, je suis bien, je suis, je suis serein dans, dans, tout ce que je fais et, okay. et j'en profite. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors Je sais pas, de gagner que... le Scudetto avec Napoli, déjà. avec la sélection de, de participer à, à, la Coupe du Monde et d'aller très très mm. le plus important, la Cannes 2017 qui, qui est, voilà, je pense, qui pourrait objectif euh, ça serait le début d'une grande chose pour le Sénégal et j'espère qu'on qu fera bonne figure à cette canne-là. Bien sûr. Alors comme vous dites que souvent les gens pensent que vous ne parlez que français, on va vous donner l'occasion de parler tout couleur et de saluer euh, voilà, tous les Sénégalais en tout couleur. Il y en a beaucoup euh, qui sont tout couleur et particulièrement euh, les populations de Matam. Pas de 5000 Sénégalais au faux. <laughs> D'accord, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. <laughs> Inch'Allah, à bientôt, j'espère bien. Voilà, merci en tout cas de nous avoir accueillis encore une fois ici à, Naples. Bonne continuation. Et à très bientôt en sélection, certainement au Sénégal. J'espère bien, merci. de nous avoir suivis dans les maîtres du jeu. Euh, Hamza Diallo et donc euh, Mam Fatundo. Et merci à toutes les euh, personnes qui nous ont aidés à réaliser euh, cette émission. Excellente soirée et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. seconds, seven seconds away. Jesus is my I believe. Grazie. Merci. Obrigado.